bi ci bi bi ci gën a nekk surprise te ñu yaakaaruñu ko woon mooy peut-être bu bu bu Pastef. Mhm. Euh, parti Pastef euh, bon ex Pastef parce que parti la boo xamante ne nii. Mhm. boobaak léegi euh, nee nañu dañu ko dissoudre ak lu ci mën a am ñu ngi xaarandi gu wànnent fan la mujj ki gëtam waaye li ñu mën a jàpp moom mooy ne. est partir du moment où ñu ngi xaar wànnent fan la mujj ki gëtam rek nañ ko woowee Pastef. nañ ko woowee Pastef kon d'accord nañu woowee ne Pastef jamono ji nag jël na ay. loolu mooy droit loolu mooy droit. la tegee dara mhm. nga am possibilité dem def recours mhm. wala def appel ak ni ñu ko mënti tuddee dañuy wax ñu jàng droit dañuy wax ne l' appel est suspensif mhm. ñun très souvent loolu la ñuy wax euh, loolu la ñuy reprocher classe politique bi naan dañuy condamné nit sans ñu respecter sa présomption d'innocence ma jàpp ne ñun aussi journaliste waruñu tombé ci loolu ñuy tere homme politique yi parti bi Pastef la tudd y a un décret présidentiel bu ko dissoudre parti bobu ñiko jité possibilité dem def recours appel peu importe en tout cas attaquer euh, euh, ce décret du président de la république mm. à partir du possibilité def ko jusqu'à ce que vous nekk le définitif mm. la ko jour Aïcha sama xel très souvent et daf may un peu la presse sénégalaise journaliste français euh, dafa bind benn livre bu mu Jihad Academy parce que moom dañ ko jàppoon euh, ay jihadistes ñoo ko jàppoon ci Syrie pendant des mois Nous mu fa jógee mu génn bi ñu ko libéré bu ñu France bind ben livre tuddee ko Jihad Academy mu am ben débat bu mu doon def euh, débat bi euh, mu amoon ben expression moy dafa am organisation jihadiste bu tuddee organisation terroriste bu woowee bopam état islamique xam nga état moy comme Sénégal réew mu ñu taxawal ak tout ce qu'il faut légui le débat c'était est ce que ñom journaliste dañu wara wax état islamique wala waruñ ko woy non parce que dañ considère que c'est pas un état mune mais mom wajoju non mune mais c'est de la fumisterie état islamique lañ ko tuddé on a qu'à l'appeler état islamique tout à fait man aussi je dis souvent que ni pastef le parti bobu tuddou jusqu'à ce que ñu dem ba mu définitif bañ ne parti bi existeetul man Moustapha Diop de Pastef la kay woy mais nak euh, je vois très souvent dans la presse ñu ex Pastef justement justement Moustapha est-ce que décret bobu sax du peser lourd ci candidat yi nga xam ne ni ñu ngi wane seen bopp ci biir Pastef alors que ñun on sous tant que mhm. comme ni ñu ko waxee que le parti a été dissous dinaa ci dinaa ci wax léegi mais Aïcha dafa am benn message mm. boo xam ne vraiment je tenais tey à partager ça avec les Sénégalais parce que je pense que les Sénégalais, il faut que nous ayons. Parce que nous sommes en 1960, en 2023. Le Sénégal, si on a des gens qui ont été nous avons un âge de voter qui Sénégalais. Nous avons un âge de voter. Nous avons un âge de voter. Nous avons un âge de voter. Nous avons un âge de voter. Nous avons un âge de voter. Nous avons un âge de voter. Nous avons un âge de voter. Nous avons un un âge de voter. Nous avons un âge de voter. Nous avons un âge de voter. Nous avons un âge de voter. Nous avons un âge de voter li mu bëgg wax foofu mooy sànq bi muy dugg fii ci bureau Pierre Edouard Faye laa jaar ma koy laaj euh, ci affaire euh, ñi retiré seen fiche de parrainage mu ne ma tey ci suba la fay yónni benn reporter am bu tudd Pate Mbengue mu ne ko pour le moment Aïcha 196 sénégalais retiré nañ fiche de parrainage ne dañoo bëgg a nekk candidat à la présidentielle 196 presque 200 cent loolu li lay fàttali mooy boo boo delloo ci ginnaaw tuuti affaire bii ñu tuddee parrainage nga xamné man dama japp ni li ci ay tapalé la naa ci ñëwaat. bi ñu ko maître Abdoulaye Tine yobbo haute cour de la justice. Euh, bu CEDEAO attaqué ko né parrainage ni ñu koy défé ci baaxul. CEDEAO dafa waxoon né le Sénégal dindi parrainage am bi xoolaat ko na ci argument yi nga xamné mom la CEDEAO joxé won daf né Sénégal amna lu wara a toll au moins ci 300 cent té 300 trois cent su fekkee ne dañu dem élection parti bu nekk am nga droit présenter candidat wala déet. bien sûr 300 partis yooyu ku ci nekk présenter candidat candidat yooyu ku ci nekk dem wuti parrainage am ce ñu dul matal. Mhm. te loolu loi mënu ko maye. tey jii nii 196 sénégalais yoo xam ne dem nañ ay fiches dañuy wuti parrainage mhm. ñoom ñëpp suñ demee wut parrainage fichier bi war a toll su suma jumul ay 6 millions 7 millions est-ce que ku nekk su jëlee 60 mille parrainage am na ñoo xam ne jël lu ko. comme ni Macky Sall defoon en 2019. ñu ne ko wutal 60 000 mu wut lu ko ëpp. am na ñoo xam dinañ du ko ëpp am na ñoo xam ne dinañ wut ba wut lu ñu denc en bu amee ay doublon yooyu ñu remplacer. Mm-hmm. ça veut dire quoi que ni les 196 ñoom ñëpp bu ñu demee wuti dana am ñu dul matal. Mm-hmm. loolu moo taxoon CEDEAO ñu parrainage baax. beneen bi mooy te loolu Sénégalais yi ngir yàlla ñoom ñoo ci war a yeewul seen bopp du kenn moo leen ci yee. Mm-hmm. les Sénégalais il faut que ñu yeewu. man dama naan il faut que ñu am fulla seen bopp Aïcha mm. man ma dëkk ak yow ci même quartier bi ngay sama voisin ma bokk ak yow ndey ak baay mm. euh, ngay sama nijaay ngay sama tante ngay ku ma jàngaloon ñëpp laa ci yemale man du ma nangu benn homme politique ak ku mënti doon nga def ma marchandise di ma jaay gis nga 196 yi ngay dégg ñi ci ëpp ci ñoom dañoo bëgg a takk sénégalais yi yeewu leen def leen marchandise jaay Aïcha mm. yaa gën a xam ne gis nga ci liste yi ñu la wan ne ñii Euh, dañoo bëgg parrainage gis nga ci ñu baree baree bari mën nga leen a wàññi benn par benn nga xam ne bu baax mu leer la ñii suñ dee wuti parrainage mënuñu am 5000 parrain. man mii su ma sàmpoosee yaa leen ëpp léegi li ñu bëgg mooy lan. am na sax des hommes politiques yu ñu miin ci dëkk bi ñoo xam ne médias yi miin na leen tey ñu ne dañoo bëgg a nekk candidat te mu leer la leen ne mënuñoo am 20000 parrain. buñ ko amee ay jàmbaar lañ mais ñi leen di gis ñu koy def ñu naan ñii dañoo dof wala ñu naan ñii dañ ñoo ñooñu sénégalais yooyu ñoo war a yeewu xam ni gaa yi bëgg man dama gëm leen dama gëm ne démocratie élection présidentielle moment la boo xam ne toutes les sensibilités doivent s'exprimer dama bëgg ci élection présidentielle Aïcha Diakhaté mi nga xam ne moom daf ne man nekkin journaliste yi moom la moom ma intéressé mu nekk kandidaa su ko neexee ngir mën a xeex ci loolu keneen ne man baykat yi laay waxal nekk candidat ngir waxal waxal baykat yi keneen ne man la classe ouvrière moo ma intéressé nekk candidat pour loolu keneen noonu keneen noonu keneen ñëw ne man kat chef d' entreprise laa woon damaa xool depuis 1960 homme politique yi ni ñu yore suñu réew mi baaxul mënuñu sax créer benn emploi comme man dama yor entreprise di créer emploi mu bëgg nekk candidat ndax li may def sama entreprise ma xool ba xam bu ma ko defee Sénégal dina dox keneen dagg ca langa man homme d' affaire def naa lii wër naa fu ne dama bëgg a nekk candidat keneen ñëw comme ki ma gis waa Pur tànn ko laa ne man fonctionnaire des Nations Unies la dem naa ci réew mu nekk euh, régler fa ay problème dama bëgg sama réew mi ma indi fa sama njëriñ comme ni ko euh, Ibrahima Fall defoon en 2019 mais regarde ce qui se passe su fekkoon ne loolu la ce serait une excellente chose parce que moo tax ma bëgg élection présidentielle bu ouverte mais ce qui se passe mooy gars yi dañu nar a jël sénégalais yi ñu ko nangu yeew leen tënk leen dem commerce leen jaay leen xam nga mooy lu ñuy def Aïcha Diakhaté day ñëw jëli fils de parrainage. Mhm. moo tax ma ne fiche de parrainage gars yi dañu waroon a ñuy joxe caution avant koy jël ñu ne la tegal 5 millions ci table ji su fekkee ne amoo 60 000 parrain nga ñàkk sa 5 millions wala 10 millions je ne sais pas. Mhm. mais waruñu def rek Moussa Faye Diop toog ndékki ba regg dem waaxu ñu jox ko fiche parrain mu ñëw. tex mu leer ko mais gars yi ñoom fowuñu de ñun Sénégal ñu ñooy fo mais les hommes politiques là ñoom fowuñu dañuy commerce. lan mu nekk ci ginnaaw kon. xamul lan lañ nar. da ngay gis ñoom leer na leen ne bu ñu demee ba ñu ci cappaandaw ga candidat yi fukk autour de fukk lay doon wala ndegam bu fekkee dina ko mat wala 15 je sais mm-hmm. mais du en tout cas du mat 196 du mat sax 80 mm-hmm. mais ce qu'ils vont faire Aïcha mooy dañuy ñëw wut seeni fiche de parrainage dem wër réew mi fekk sénégalais boo xam ne dafa ñàkkal boppam fayda nañ ma jéggal ci wax ji mm-hmm. ku ñëw mu ne ah kii kat sama dëkkandoo la mënuma koo bañ a kii kat euh, nangam ak nangam kii kat nangam dem parrainer ko gis nga su paree nu muy def day jël vingt mille parrains yooyu mu am bis bu demee ñu lijjanti parrainage ne ñii ñoo matal ñii matalul moom mu bokk ci ñi matalul te leeroon na ko ne ci ñi matalul lay bokk. Mhm. mais day dem dugg ci coalition. dem dugg ci coalition Amadou Ba wala coalition beneen candidat comme ñun suñu classe politique bi depuis 1960 ci ay nax ay tappale ay dil doom la ñu nekk. Mhm. nga dem dugg ci biir ne man kat gis rencontré candidat bi ne ko man kat am naa vingt mille parrains vingt mille parrains c'est potentiellement vingt mille électeurs. Mhm. ko defee ñu jël la dugal la ci biir boole la ci conférence des leaders nga nekk fa bu bu waaj a faloo nga def lii waa Benno def. chaque chaque kii ñu ñëw taxaw la conférence des leaders de Benno leaders yooyu ju ci bari maa leen ëpp ay nit. loolu Aïcha man du ma ko regle direction générale des élections du ko régler les partis politiques yi ne ci opposition bi di wax duñ ko régler société civile duñ ko régler xam kan moo koy régler. chaque sénégalais chaque sénégalais mooy jël responsabilité am ne man ki may pare ne day nekk koo xam ne damaa yaakaar ne bis bu nekkee candidat dina nekk candidat te bis bu nekkee candidat am na possibilité dem gagné ci. jiite réew mi doxal ko loolu mooy parrainage mais su fekkee ne fii la ñuy toog ku la indil ab liste nga ñëw xool daane ne ah, comme loolu la rek man du ma ko wooteel sax mais naa ko parrainer yaa ngay jaay sa bopp man maa la ko parce que gars yi wutu ñuy parrain ñu ñu tëgg jaay leen Amadou Ba wala keneen keneen la ñuy loolu nag pare naa sax comme lu mu leen di. Hmm. bàyyile la koo wegul doo ko bàyyile sax. mais man man man gis nga euh, man nga mën naa pare ne de. mën naa pare ne sax koo xam ne duma ko voté. parce que loolu am na mais na nekk koo xam ne da nga naan da nga xool ne kii kat. ci moom yaakaar loolu la parrain teg ah, à l'origine c'est ça. Hmm. mooy xool koo xam ne ne kii kat man bëgg naa mu bokk ci élection hmm. bëgg naa mu def campagne bëgg naa discours am Sénégalais yi dégg même su ma bokkut ak moom mane naa ko pare mais ne koo xam ne yow bi koy parrainé leer la leen ne yow kii yow ak sa yow rek la am ci parrain wala yow ak keneen. Mhm. du dem fen nga dem jël sa tur jël sa numéro carte d'identité jël sa adresse yëpp bindal ko ko ci feuille mu dem yóbbu ko maa ne la tënk na la te da lay jaay. kim lay jaay mooy candidat boo xam ne am nay parrain mën na nekk opposition mën na nekk pouvoir mu dem nag ah man kat euh, dama bëggoon a nekk candidat mm-hmm. wër naa réew mi am naa vingt mille wala am naa trent mille parrain mataluma léegi su boobaa dañ naan ah trente mille de parrain de trente mille parrain de c'est potentiellement trente mille électeurs mm-hmm. su ko defee ñu jël la ne la léegi ñëwal bokk nga ñëw bokk conférence des leaders fu ñu wootee réunion nga ñëw toog voilà bu waa ji nekkee président fu mu wootee nga ñëw taxaw soo lëggee mu nekk président nga ñëw euh, wut benn poste ministre comme Sénégal pàccoo lañ xam wala benn post PCA wala ay député dugal sa benn jigéen fii dugal sa benn euh, jarbaat fële yow pan mi nga xam ne maa la parrainé woon nag man duma ci am dara ma yaakaar ne li ma def c'est pas grave c'est très grave parrainage c'est du sérieux du ay fo dañ bàyyi caaxaan yi te loolu la classe politique duñ ko régler parce que moo leen mais Sénégalais yi kenn ku nekk ci ñoom ki may dégloo fii ci Dakar ki may dégloo ci biir réew mi ki may dégloo dans la diaspora ñoom ñoo war a xam lan mooy valeur parrainage mm-hmm. lànk ba tëdd ca naaj ba temps yi Aïcha foo gis statut boo gis mm-hmm. gis ñu bind fa je parraine Aïcha Diakhaté mm-hmm. je parraine Nangam, je suis femme, je parraine Aïcha je suis jeune, je parraine Nangam, je suis. Mais il faut arrêter cette histoire-là. Nous devons le sérieux. Les sérieux, moi, candidat yu valable ñoo war dem ci élection yi mhm. Sénégalais yi déglu leen ku nekk wax ni nga mëne ñu dénk réew mi ki gën ci ñun ah, wala ki ñu yaakaar alors Moustapha jàppoon na yow njàngale mu am solo bi nga def autour du parrainage mhm. expliquer également le concept du parrainage expliquer CD bi autour du parrainage du woon tey cëru nguur gi rawatina cëru ñu tëgg élection yi ngir ñu même bu fekkente ne am na ay canaux de publicité ñuy def sax ci télévision yi hmm. xam askan wi lan mooy cëru parrainage lu cë nguur gi du ko def cëram la loolu cëram la li nga wax ni hmm. cëram la mais du ko def xam nga lu ko def du tax du ko def la situation là muy perdurer statu quo bii ñu nekk depuis 1960 moo ko arrangé moo arrangé lobby yi nekk réew mi moo lu lobby yi nekk bitim réew moo tax duñ ci soppi dara ñenn ñoo ci mënoon di ci wax guddeeg bëccëg ba Sénégal di ci yeewu. Mm. mooy ñi nga xam ne dañu am accès à la parole publique muy les journalistes notamment mais journalistes sénégalais ay lu leen arrangé lu leen intéressé dem euh, réunion euh, APR xaw ma réunion benn bokk yaakaar ñi ñëw xëy suba naan ñu Amadou Ba nee na lii. Euh, tagg na. ah kii nu mu tudd euh, waa ji Abdoulaye Daouda Diallo. des titres presque identiques Abdoulaye Daouda Diallo nee na ñoom ay frères lañ nangam mais qu'est-ce que c'est que ces histoires là. des titres tey soo benn waaye mu ne day déglu benn revue de presse mais revue de presse bi yëpp diw la ak Amadou Ba diw ak Amadou Ba diw ak Amadou Ba ba mu jeex mu ne ko mais bu ko dégloo waaw kese oh, la <laughs> <laughs> euh, de ana mais Moustapha au delà de tout dama daan wax ne ku xamul ñaata laay jar ma xam ñaata laay jaayee sama dëgg Euh, au-delà de tout Moustapha peut-être pour boucler ci wàllu parrainage boobu dafa am solo trop je pense que mën nañ ko sax cëralee kii bi yëpp mhm. euh, live bi yëpp euh, mais booy seet Moustapha moo tanewoon aussi dem pour waay lu waay neex dem rek de booy seet parrainage bi bien vrai que amna ay ndëgg sërëx yoo xam ne nii peut-être ñu ngi ko ci séentu mhm. wala ay quelque ñaawteef yi nga ci wax léegi-léegi ak ñoo xam ne dañuy raas dem comme ni ñu ko waxee wala def seen bopp mais parrainage bi quand même mu xaw a tane parce que seggukaay la ay Aïcha foofu la juumte bi am hum. gis nga bu parrainage amul woon ñu ne Aïssa Diakhaté da nga bëgg nekk candidat tu déposes tout de suite 30 millions gars yi duñ dem 196 personnes dinañ déposer ci 30 millions euh, nu ñu koy waxee sax euh, conseil constitutionnel toog di xaar ba xam euh, dinañ ko jotaat suñu amee nangam pour cent du parrainage bii moo tax affaire yi bari gars yi duñu ay candidat il faut ñu wax ko mu leer ñiy wuti affaire duñ ay candidat ni ma gëmee man Moustapha Diop ne du ma nekk candidat 2024 ñoom noonu lañ gëmee ne duñ nekk candidat 2024 mais dañuy commerce dañuy investir pour gagner dara <laughs> hmm. man sax li ma naqar mooy tax wuti mu fiche depuis sama tour de wuti fan nañ ko essayer nak mais mais attends gars ma la ko wax ay sa duñ ay candidat être candidat à la présidentielle intéressé wu len intéressé am nañu am nañu xamné nak intéressé len hmm. dañu bëgg nek candidat parce dañu un projet pour le Sénégal mais dama ne la boko boko defone ñetti xaj ñaari ak lu ca top dama ne duñ ay candidat boo leen woowoon may leen di parrainage ban matal duñ nekk candidat alors mais parrainage biñu ñu tudd. Mhm. moo ku nekk dem jëli ay fiches te fiches jëli ko du dara da ngay waxu dem ñu jox la kenn lañ ko fi bañal mu Ousmane Sonko. Mhm. lañ dess ñëpp da ngay waxu dem ñu jox la su la joxé ngay wër du am na xam sax seen kër lañuy ñuy mhm. dem désigner quelques personnes dans quelques départements du Sénégal na leen wut leen 2000 parrain bu ñu amee téeméer baax na bu 200 baxna indi jox la. mais lool lañuy wut duñ ay candidats. donc ne me dites pas que ni parrainage c'est une bonne chose. filtre la mais dama ne filtre bii moo tax gars yi bari. <laughs> parce que gars yi du ñu ay candidats. <laughs> Mhm. wax Aïcha mhm. être candidat la présidentielle c' est très sérieux. c' est très sérieux c' est 30 millions que tu donnes. Mhm. mooy su caution fixe nañu ko dem. ba pare c' est des moyens que tu dégager. ci oto ci oto ci oto. ci carburant bu koy dawal ci ay t-shirt ci ay panc ci ay euh, affiche yu kenn xamul yooyu gars yi defuñu ko. moyens yu énorme la vraiment non non defuñu ko. alors Moustapha leer ba